ñuy nuyu mboolem ñi nga xam si ñooy ànd ak ñun ci Louga TV di nuyu Amady Mba sunu xarit mi nga xam si moom moo nekk suñu digganteeg euh, chaîne bi nga xam ne moom maa ngi wax ni yàgg nañ ci palaato bi ñuy daan tafsir moom daan daanaka yoral machine yi euh, ñu nuy bokk yëpp di ñaan yàlla mu nangul ñu suñuy koor euh, di wax rek ni ñu ñëpp yàlla nañu yàlla nangul yàlla yàlla nangul dañu bëgg ab julit lépp lu muy def rek mu teg ko fu wér teg ko ci sharia euh, li ngeen ñuy laaj ñun fii kër sëñ Abbas wuute amul ñun ñëpp wari nañ tey ci samedi ji tey ci samedi lañ la ñu wari di vingt trois mais ci la ñu wari wari kori gi nag dañ ko teg ci ay sukkandikukaay bu wér boo xam ne si moom lañuy ñuy sharia sant ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni woon Euh, bu leen woor te gisu leen weer bu leen woor yi te gisu leen weer bu amee lu dox seen digganteeg weer wi nag ba gisu leen ko matal leen fan weer charia euh, boobu lañ jëfandikoo euh, bi ñuy seen weer yi démb maanaam xabaar bi ñu njëkk am rek bi ñu njëkk am daanaka doyoon na moo tax fokk bokk yi ñu dëgtal leen loo xam ne si amoon na ci li nga xam si bokk na ci li ñuy li ñuy li tax ñu um muy génn kilifa goo xam ne xam nañ ko xam numéro téléphone ñi ko gis ñu woo leen téléphone mu wax ni ay doom ñu ko gis seede nga xam ni loolu bu boobaa dañuy tënk muy kilifa gi alamin salaamaaleykum Mouhamadou Lamine Dramé aquga sanet Aboubacar Dramé Kaolack maa ngi lay nuyu maa lay maa lay xamal ne ñun de fii ci Arafat ci daara ji ci Kaolack gis na weer suma doom Mouhamadou Lamine Dramé sama taaw am na fanweeri at gis na weer ak bëtam alaaji Guèye ci daara ji la nekk jàngalekat yi la gis na weer ak am na ñaar fukki at ak juróom sama doom am na ñaar fukki at ak juróom gis na weer wi Aboubacar Dramé sama doom la am na ñaar fukki at ak juróom gis na weer wi soxna soxna Tawa Dramé sama jaware Moodu bokk na ci gis weer wi maam Seet Dramé <coughs> mu yore benn folaay fii ci suñu war nañ moom ba mu gis ko waaye borom daa day jàngale moom itam gis na weer wi kon daal ñii gis na weer wi fii ci lii nag xibaar maa leen koy jotali jullit li yonent bi waxoon rek ndax ndax naa ñu ne mu ne kon nag fal yu fal yu balliq kon nag alhamdulilah xibaar bàngoog fa man saa kon lii bañ ko jotee Euh, dama ni xaw ma ren la xaw ma daaw la ñuy jéglu ñuy jéglu euh, dama xaw ma ren la xaw ma daaw la xaw ma ci bi ñuy seenu koor la xaw ma ci bi ñuy seenu kori gi ma yable ñu téléphoné am na ay am ñu téléphoné leen ña ko gis ñu wax ni ñun ñoo ko gis te tey jii ci àjjuma ji le 22 mai ci lañ ko gis loolu lépp ojo yi tasaar nañ ko ci ci groupe yëpp bu ko defee kon ñun koor gi ñu woor li ngeen ñuy laaj maanaam euh, gis nañ ni fu wér lañ ko teg dañ ko teg ci charia euh, looloo taxoon looloo tax ñi ñuy wori léegi nag man ni ma gisee réew mi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am lu mu waxoon man nag dama ni woon jotagul waaye ndekete jot na دفني ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا والدنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك خما يا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم نكون يكيب بوبام كسانكو دال سين يوني كوتي يونتي بصلاة نك جوتوغول دي هيدت دي لين ديغلي لو باخ دي تيرلو بون di leen digle lu baax di tere lu bon bu ngeen demee nag ba gis ñuy topp koo xam ni du xam-xam lañ ko toppi bu ngeen demee ba gis kenn ku nekk bànneexu bopp bakkanam gënal ko lu ne bu ngeen dee ba gis kenn ku nekk àddina gënal ko alaaxira bu ngeen demee ba kenn ku nekk sa xalaatu bopp doy na la sa xalaatu bopp mooy sa xalaatu bopp yow wala sa xalaatu baay wala sa xalaatu sëriñ wala sa xalaatu kuréel bu ñu nee ba kenn ku nekk sa xalaat bopp de bu boobaa nag kenn ku nekk na kippe boppam loolu ca la ñu toll fi ñu toll nii barki démb maa ngi koy waxtaane eh, bu dul seenu weer am na ñoo xam ne si xaw leen damay toog ba ca jox jot seen i audio rek ñi may ñi may laaj ci wàllu diine di ma laaj ci wàllu masala waaye buñ nee ba wàllu weer texaw rek kenn ku nekk daal di dem ca sëriñam eh, léegi nag dafa am benn benn benn eh, naxe boo xam ni ñu bare moom lañ doon doxal digal nañ ma ko ba tàyyi waaye xam naa ne man naxe yooyu boo wutul dinaa ci boo bi parce que ay naxe la kii jiite commission bii wax naa ba tàyyi ni woo na ci nee ma sëñ Lamine defal ni may def man ko nooy def mu ni ma yow wari tani pat woor tani pat ñëpp moom lañuy defe defee sëriñ su bare am na taalibe yoo xam ne si tey jii dañoo yendoo koor te seen sëriñ dog na am na ci ñoo xam ne ñoo ma ko wax carrément def naa benn tournée boo xam ne ci Thiès di wër ci borom xam di wër mais man dem naa ci ay kilifa yoo xam dañ ma ne Seydi Lamine defal nit ñi def man leen nu ngeen def mu ni woor ni pat warini ni pat loolu nag man ca laa ca laa bëgg a commencé jëm nii nag parce que loolu ay naxe la bu boobaa ni ma koy defee nag euh, ni ma doon def dem ci média yi naan woor nañ wari nañ dem ci rajo yeeg télévision yi maanaam bu ñu ma laajee rek dinaa leen wax li nga xam si moom la charia wax waaye du ma neeti kenn nañ woor bu ma neeti kenn nañ wori la yonent bi waxoon ni kenn ku nekk nekk ba mu loolu agsi nañ ci euh, maanaam Sénégal borom xam-xam yi fi nekk amu ci kenn ku xamul ni tey la li tax may wax loolu mooy amul ci ku ku yëgul ni weeri feeñ na biig amu ci ku yëgul ni weeri feeñ na bi yéen ñi yëg ngeen ko ñi leen yebal yëg ngeen ko ñii ñëpp xam nañ ni Elimane Gora Sall mi xam na ni weeri feer na feeñ na bi parce que képp ku yore WhatsApp wala nga dugg ci groupe xam nga ni weeri feeñ na léegi nag lu tax lu tax wari woo mooy gaal gi bëtt na ñin nañ bàyyi ba capitaine bi wax ko ñuy soog a jël suñu matukaay mooy loolu gaal gi bëtt na nañ ni fan la bëtte waaye gaal gi bëtt na ñi ni ko ko wax ñi ne Amady Ba ko wax ñu eh xanaa bu gaal gi bëtoon capitaine bi moo koy wax loolu nag bu boobaa mooy kenn ku nekk day jéem a rawale boppam loolu ca la ñuy toll nii maanaam lu mat fanweeri at ak nii dañ naan sëñ Lamine Sall wari na sëñ Lamine Sall ma ngay wax ca rajo ba ma ngay wax ci télé bi léegi nag lu may waxati ci wàllu koor ak kori mooy jàngale nan la ñuy woore jàngale nan lañuy wore woree parce que yàlla dafa ni alaykum anfusakum na ngeen couper seen bopp la yadurrukum man man dalla idha ihtadaytum koo xam ne dafa sànku bu ngeen tegee ci yoon yi yéen loolu lam def maanaam wari leen yéen ni pat bu bu fekkente ni am na ku wariwul ba dugal boppam ci alkande yéen du leen ci yóbbaale te musu ñoo woree wala ñu woore nu gën a leer nu gën a leer ni ñu ni ñu wooree ni ñu waree tey ji amu ci nen nañ ko nu gën leer même ñii wari suba duñu du ñu am lu gën a leer lu démb li xanaa weeri feeñ ni dàng te bu boobaat day gën a bu weeri feeñee ni dàng day dëggal ñi wari tey jii bu fekkente ni feeñul ni dàng xanaa dafa am ñu ko gis ña ko gis lu ñu bare bare duñ ëpp ñi nga xam ne si ñoo ko gis ñoo ko gis eh, eh, démb te it am na lu yàlla leeral tim parce que dafa am ñu daan wax naan gaa yi Arabie Saoudite la ñuy déglu parce que man mii li ñu ma daan toomal dañ naan yow màkk ci màkk ngay sukkandiku xoola Arabie Saoudite tey jii dañoo yendoo koor tey man ma wari te te Arabie Saoudite maa leen di ëpp lay maa leen ëpp lay man buñ buñ ma laajee moo yàlla laajee damay indi hadis yonent bi indi ay alquran ñoom nag buñ leen laajee dañuy dañoo gisaane Arabie Saoudite dañoo gisaane gisaane kat yi ñooñu leen weer wi kër kenn du ko mën a gis a ajjuma kenn du ko gis tey ñoom du ñu daanu xoola bi weeri feeñee ñu la ngeen gis benn ab biddiw ngeen gis biddiw utaarit ngeen gis léegi loo ci mën du ñu daanu mukk léegi nag la ñu lislaam santoon santoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni àll yàlla moo wax ni wa ashhidu zaway adlin minkum na ngeen seede loo bu ngeen di seenu weer wala ngeen di seede dara na ngeen seedeloo ñaar ñu maandu ci yéen jullit ñi seet loolu ñaar ñu maandu euh, tebbi nañ la yàlla waxoon parce que am na ñaar ñu ëpp ñi ñi ma leen tegal ñi ëpp na ñaar tebbi nañ waxu Sidi Hadji Malick radiyallahu anhu boo demee ci kifaayatu raaxibiina boo demee ci kifaayatu raaxibiina Sidi Hadji Malick radiyallahu anhu dafa juróomi nit bu ñu nee gis nañ weer wi bu leen xoolati ndax ñooñu maandu nañ wala maanduwuñ ñu ne bu ngeen naan bu ngeen naan ku gis dafa war a maandu ma soog a wari wala ma soog a woor day fekk matuñu juróom waaye buñ xasee mat juróom ba lu ko ëpp Sidi Hadj malik nee na ci Kifaayatu Raaxibiina kenn sartante tu ci ñu maandu même buñ dee ay agresseur kon nag kon li yàlla wax ñun tege nañ ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax tege yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn waay képp nee na ko gis nañ weer wi gis naa weer ab sàmm mu ni ko ndax wax mën waxal ashhadu an laa ilaha illa mu ni ko ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammad rasulullah mu daal ni bilaal waxal ni nit ñi nañu nañu nañu woor wala nañu wari kon bu boobaa eh, kon man fi ma koy teg am naa Arabie Saoudite nag boo leen laajee dañ naan dañoo calcul te yàlla laa yu'badu bil wahmi wala yu'badu bi shakki wala yu'badu bi zanni yàlla kenn du ko jaamu ci nattable yàlla kenn du ko jaamu ci sikk sàkka yàlla kenn du ko jaamu ci njort ci lan lañ koy jaamu yaqin ñaata yoon yéen ñi ngeen dégg waa météo calcul ci seen waa astronomie daal ni tey dafay taw mu daal di taw jant bi dañ koy jàpp mu jàpp jant bi dañuy jàpp weer wi ñu jàpp weer wi mais ñaata yoon nañ ko wax mu échoué ren jii rek ci 2019 bi ci début deux mille dix-neuf ci mois de janvier bi dañoo déclaré ni weer wi dañ koy jàpp tey ci guddi ba am ñu wax sax ni dangeen ngeen teel a julli gee parce que dañuy jàpp weer wi bis booba bis booba mi ma fekk Touba laa fanaan waaye étage bi nga xam ne fa ma fanaan dafa kawe waaye dafa mel na man weer wi ci boppam lampe la boo xam moo dugg ci biir ci ci ci biir véranda bi ma nekkoon dafa leer naññ toog di ko xool ba ba daanaka ba xaaj guddi xam nga kon yàlla dafa nanguwul ñi di ko jaamoo tey nii tey naa fi mu ne léegi neewoon naa leen duñu daanu xoolal tey ñun ñi gis weer wi ñi nga xam ne ñoo gis weer wi démb ba tax ñi wari tey ñoom nee nañu waa olamaawul fëlëk ñi nga xam dañ doon gisaane nee nañ ña gis weer lañ gis du weer xam nga beneen bàkkaara ngoog lañ kan lan moo lan moo leen wax lañ gis du weer kon léegi nag moo tax yenn ci ulamaaw falak yi dañu ni bo léegi jot na bu fekkente ni fala ilmu astronomie dafa ni dafa calculer ni weer wi du feeñ bu boobaa dootu warutuñoo jëfandikoo xadis bi parce que lii xam-xam la boo xam ne si yonent bi reconnaître na ko te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan la ko yàlla di rerele xam xam-xam bo xam ci moy régler problème xeet wi lu yonent bi saas dafa ne woon bu len wor te gisu leen weer bu len wori te gisu leen weer bu amé lu dox sen digënté ak wer yi ba gisu leen ko xam nga kon moy nee feñna waye amna lu dox sen digënté ba gisu leen ko matal len fan wer lu tax mun woon wax ni na ngeen na ngeen calcul ci ci ci xam ci elmu nujum moo xul lolou dafa ni bu leen woor te gis leen weer bu leen woor te gis leen weer kon korik tey jii nga xam si mooy samedi samedi 23 mai 2020 ñu ngi ko teg ci yu wóor mooy yi nga xam si moom lañ leen tegal Arabie Saoudite bi nga xam dafa calculer nag am ñu ci ànd ak moom xam nga euh, ñoom Arabie Saoudite am nañ fi ay taalibe am na ñoo xam si dañ daan wax ni weer yi fu mu mën a feeñee ci àddina bi rek dafa dafa danay jàpp julli ñëpp loolu moom tey maa ngi fàttali ñi nga xam ne ñoo daan wax loolu ñi nga xam ne ñoo daan wax naan weer yi fu ñu mën a feeñ ci àddina bi tey feeñ na ci ay réew yu bari ci Afrique Arabie Saoudite xam nañ loolu waaye duñu Arabie Saoudite weer yi bu feeñewul Arabie Saoudite rek duñ ci sukkandiku moo tax pays golfe yëpp dañoo ànd ñoom duñu seen weer Arabie Saoudite la ñuy manam li am legui li am legui moy bakkan ak daraja bëgg bëgg daraja kenn ku ne kenn ku da nan man may wax ni wéri yi feeñ na yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ci benn ni ma zibani jaa'iaani bata fi ganamin laysa laha ra' bi afsada ala al mar'i min hubb al mal wal jaahi nee ñaari til yu fanan ci jurgu amul sam gënuñoo mën a yàq ni daraja ak alal di yàqi doomu aadama di yàqi nit nga xam ni nga xam ni xoolal xoolal ñaari till yu xiif till benn till mën naa fanaan ci ak ak girt rey geexal lépp parce que till li ko neex mooy fàdd bu fàddee aw bëy tuuti la cay lekk da ciy bàyyi daal dem fàdd beneen parce que fàdd gee ko yonent bi nag ni ñaari till yu fanaan ci gétt gu amul sàmm gënuñoo mën a yàq nit daraja bëgg daraja ak bëgg alal di yàq doomu aadama moo lay sa moo lay ñàkkloo sa ngor wa xubbul aychi abada kulla xurrin wa allama saaxiban akla al muraari bëgg a mooy mooy soppi ak as gor soppi ko mu nekk jaam waaye bëgg bëgg dund mooy jàngal ku xiif nan la ñuy lekkee lu wex ngir bëgg a dund ñenn ñi ngir daraja lu tax lu tax mu may jëkk a wax ni weeri yi feeñ na euh, commission bi nga xam si moom la ñuy déglu commission bi ñuy déglu maanaam bis bu wuute woon ak kër yu mag yi booba lañ koy weddi te am na jamono boo xam ne si weddi woon nañ leen jaaroon nañ fee kër yu mag yi benn bis ñoom dañoo annoncé wuute kër yu mag yi mais ñëpp dañ ñëwoon leen fii dañ leen fii jëlee te li tax te euh, dañ ko tudd commission nationale maanaam nit ñi ñàkk a fonk seen diine ak bëgg seen addina fonku seen addina ñàkk fonk seen diine moo tax ñu fekk benn commission boo xam ni ki ko formé kenn décrété wu ko du décrété boo xam ne si président moo ko moo ko décrété benn waay boo xam ne si moo woo ay nit ni leen kaay nu formé euh, commission man mi woo nañ ma ca ba tàyyi at am na at mu nekk daanaka dañ may woo waaye li tax du ma d'accord ak ñoom dama ni leen man de bu weeri feeñee Mali dina ñëw de mais bu feeñee Mali dina ko wax bu feeñee Mauritanie dinaa ko wax sama téléphone duma ma ko fay ku ma woo dinaa la wuy boo ne weeri feeñee ma wax leen ko ni kon bul ñëw carrément bul ñëw eh, kon li nga xam bu dégg ñak deg hadith yunus sallallahu alayhi wasallam yent dafa waxoon ci ben hadith ni as sawm yawma tasumun wal fitr yawma tuftiroon wal adha yawma tudaxuuna dama deg ben ben borom xam-xam ci rew mi muni mom bu fekkente ni gis na wéri taw Sénégal gep le upp ci Sénégal wun ci mom mom du ci sukkandiku ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lolo lolo la wax manam hadith bi da koy firé la ñëpp waxee deug te yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni fa tuuba lil xura xulil xuraba waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam bis bi ngeen woor yéen jullit ñi mooy bisu koor bis bi ngeen wari mooy bisu kori bis bi ngeen tabaski mooy bisu tabaski léegi ñoom ñu firee ko ña bis ba wor moy bisuko dedet koor bi sallallahu alayhi wasallam na ngeen wor ci gis-gis wori ci gis-gis bu ngeen defé lima len sante bis bi ngeen wor moy bisu koor lutax moy bisu koor parce que yeen yeen def lima len wax yeen def lima santane bis bi ngeen wori moy bisu koori lutax bis bi ngeen wori moy bisu koori parce que yeen yeen ko tek ci critère yi nga xam mom la diglé bis bi ngeen tabaski mooy bisu tabaski lu tax ndax yéen julit ñi yéen a sukkandiku ci ni nga xam ne noonu laa wax ni noonu la ñuy tabaskee waaye bu fekkee dina ñëpp dañoo àndandoo wàcc sunna yow yow mi nekk ci ci yow mi taxawoon ci sunna waroo jarape di wàcc di wàcc dem di leen fekki tey jii ñi wariwul tey amul benn lay dégg naa benn kilifa maanaam bu bu seetluwaatee déclaration bi dafa reelu ci benn journal laa ko gis mu ni ñoom maanaam ñoom umuñu woon ajjuma samedi lañ um tey lañ am ñaar fukk ak juróom-ñett ñaar ñeent lañ am tey tey lañ am ñaar fukk ak ñeent ci samedi ji waaye nee na ñoom suba la ñuy wari yow ku am ñaar fukk fan ak ñeent ni suba laay wari xam nga seetlu ko mooy comme am na ñu wari tey rek ñoom suba la ñuy wari bu fekkee ñaar fukk fan ak ñeent nga am da ngaa war di kay man ngoon dañuy séenu bu weeri feeñee ñu wari suba. bu feeñul ñu wari gannaaw suba waaye déclaré ne nee na ñoom suba la ñuy wari la ca gën a garaaw nee na yëg naa ni sax ni am na ñu ko gis fii Sénégal waaye loola ñu kum doy loola kum doy mën ngaa wari kum doyul nga bàyyi ba suba loolu wax gënu ko nekk jaahil maanaam wax gënu ko nekk wax juré parce que charia dafa ni dafa am yum tëral ni ku ne na lii doy na leen lii doy waaye waxul ni kenn ku nekk ak laal doy déedéet parce que am na ñoo xam ne bañ a woor moo leen doy am na ñoo xam ne si bañ a julli moo doy am na ñoo xam ne nekk jullit moo leen doy am na ñoo xam ne nekk catholique moo leen kon kon du jaagee ni ku ne nalal ku nekk ak laal déedéet dafa ni ku ne lii doy kenn ku ne na la lii doy loola mooy lan yàlla dafa ni وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل إيران تبمي جان آي بالفرد دفني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل دفني يلا نينا سمايون واني نيم رد مجب كوت درد مجب توب لنتي واي بولن توب نك نيالي لان موي نيالي موي لي واتي القرآن السنة نيواري تايري كولن لاج firnde mooy yonent bi la mu waxoon lañ def gis nañ mbooloo ñu bokkul fu ñu dëkk ñoo xam ni xam nañ leen ñu wax ni weer yi feeñ na ñu lim seen tur ñooña ñu xam leen ay nan bi ay nin ñu ni ñoom gis nañ weer yi ku ci war yow doo mun am benn toor te ñi ko gis ëpp nañ ëpp nañ téeméeri nit léegi même buñ ko gisul woon Sénégal Mauritanie suñu dikk dëkkandoo yi démb rek jot naa xabaar kenn ci ñoom nee nañ lu mat ñeen fukki nit gis nañ ko fa ñeen fukki nit Gàmbi gii mbooloo gis nañ ko fa Niger mbooloo gis nañ ko fa kon bu ñu boolee Sénégal ak sous-région bi ni gis nañ wo weer wi démb maanaam boo boo wariwul tey ana lay wa benn lay la ñuy am mooy ñooñu doyu ñuñu mooy ñooñu doyu ñu ca pourtant de nee naa leen Eh, maanute gi ñu sàkku ci yàlla dafa ni bu ngeen dee takk jabar na ngeen am seede te bu ngeen di seede na ngeen seede loo ñaari ñu maandu wala mbooloo ana kan lañ fi mës a may jabar mun naan ndax wér na parce que is ce que ña ko seede is ce que wér nañ bu ñu la may na jabar doo doo doo xam sax ña ko seede xamoo ña ko seede ña la bu sax ñooña sa ay noon lañ ñooñu luñ la ñàkk doy ñàkk doy ñàkk buñ la nee may rajo da ngaa am naa jabar sa yoon du nekk ci sa yoon du nekk ña ko seede ndax ñu maandu lañ ndax wér nañ ndax wax nañ dëgg ndax seen jullit wér loolu lépp doo ko seetante kon euh, li nga xam ne si moo fiy jëlee problème bi lenn dong la mooy seriñ si génn ci wàllu seenu weer weer moo xam koor moo xam kori moo xam tabaski xam nga sëriñ si lan la ñu ameel nañ ñu jàngal nan la ñuy wooree tàggat ñu ci nañ ñu jàngal nan la ñuy waree nan la ñuy jàngal nan la ñuy tëbaskee nan lañ ñuy jàngal nan la ñuy sellalee suñu xol nañuy def ci julli julli bu jotee noddukat bi du dem ca sëriñ bi nii naan ko ndax ma noddu kenn mus ta ku dem ci sëriñ ko ndax ma noddu déedéet sëriñ bi day toog ba ci àgg dégg ñu noddu rek mu daal di julli noonu lañ war a def ci sëriñ bi dafa war toog bañ ko ni weeri feeña na nañ woor weeri feeñul mu ni nañ matal mais nag bu fekkente ni nag ay kilifa te man li ma gis ci télévision barki dem na maa tiit sëriñ soo xam ne si li ma leen xamee woon luñ wax dañuy indi téere luñ wax jàng aaya alquran teg teg ay téere carrément di wax ba pare sukkandiku jàpp ni keroog àllarba la woon laylatul qadri te ñoom mu wóor leen ni keroog alxames 24 mai ñoom ñëpp 24 avril ñoom ñëpp xam nañ ni weer yi feeñ na ci senegal gii ak réew yi ko wër mais ndax lu tax lu tax euh, lu tax euh, wóoruñu keroog mooy capitaine bi moo niwul gaal gi bëtt na gaal gi bëtt na ñu ndax capitaine bee ko wax loolu du jir du jur jàmm gaal gi bëtt na mooy fa mu bëtte rek kenn ku nekk jël sa jël say matuwaay waaye gaal gi bëtt na ñu ni kan moo ko wax ñu ni maam Cheikh Camara moo ko eh xanaa bu gaal gi bëttoon capitaine bee koy wax loolu musiba la waaw kon nag ñi ñaan yàlla lii nga xam ne si kenn xamul kañ la fiy jóg kenn xamul kañ lay jeex yàlla yàlla jëlee ko fi teggi ko fi indil ñi ak dëppoo waaw waaye li nga xam ne sii moom laa leen di yóbbante waare Mouhamed Lamine Sall daal naxe yi ñu ko doon digal mu di ko bañ a def xam naan ci laay ci laay mujj dugg waaw mooy bu koor jotitee dinaa woor ni pat maak sama njaboot bu wari jotee dinaa woor ni pat maak sama njaboot parce que iyaan caam loolu la ma diggaloon ni ma naa ko def am na ay kilifa yu bari yoo xam loolu la ni ma sëñ Lamine yow yaa soono sa bopp dañ may ree sax naan at mu nekk lañ naan sëñ Lamine Sall woor na sëñ mu ta wax na ma ko fi Thiès ci Thiès gi wax nañ ma ko ci Dakar ni ma yow yaay soono sa bopp defal ni ñuy def kon jàpp leen yéen jàpp leen ni sëriñ si wari nañ ni pat bàyyi leen ngeen continuer seen koor commission bi wari nañ ni pat ni bàyyi eh, bàyyi leen ngeen continuer seen ngeen continuer seen koor bu dee kumte ñoom dañuy um bay leen ngeen continuer lekk ka naan loolu moo am man nag loolu damaa defe woon ni njuum tele mais loolu mooy noflaay li loolu moom noflaay la yonent bi sallallahu li mu waxoon nag ni bu ñu demee ba kenn ku nekk sa xalaatu bopp doy la kippil sa bopp man nag man duma kenn man képp dinaa kippil sama bopp ak sama njabot ñan ñoy sama njabot samay dom samay jarbat samay rak ak ko xamni si ñew na bok ci njabot gi mooy lan moy ni la sa njabot doye kat ni nga len doye non nga ñu doye ñoñ bu boobaa dañu bok ci biir njabot gi man dal ñoñ la fassiyene kippé bu ko defé ñeneen ñi nak am nañ seeni sëriñ ma bàyyi la dem ci seeni sëriñ rek wa gënaaw gënaaw lol ci manam ci biir waxtaan wi ci biir waxtaan yi dafa am ku laaj xam naa laaj yu bari la sax mais bu ko bu ko waxtu yu doon mayee dañ koy continuer euh, li ma doon wax léegi rek xam nga wax naa leen ni am na ilimaan yoo xam ne si ñi ngi woor ni pat wari ni pat loolu am na kii doon laaj ñii dëggal na loolu dëggal na loolu maanaam dafa am ilimaan te am na ay dafa am ilimaan boo xam ni moom dafa wari tey yii war a jiite ay maamu moom suba nan lay def du laaj bi noonu la maanaam dafa wori tey ni pat nëbbu ko ay maamu moom te loolu gis naa ko Cees boo demee jumaa jumaay muusante imaam Njuur dama ko fekk ci bureau ba may def sama turne boobu parce que moom bañul ma wax ko moo tax imaam Njuur dafa ma ni sëñ Lamine man yëgoo man foo wooree woor wori na foo wooree woor naa ma ne ko mais lu tax woo ko mu ma a ah, boo leen ko waxee duñ nangu ko kon kii nag ñee moom dafa wari ba pare ay maam ñamuy jiite wari wuñ mu ni ndax suba dañ leen mën a bu bu boobaa lam leen di jiite tuddul korite lam leen di jiite dañ koo sip parce que naafi la kenn du ko def mbooloo lu dul korite ak ak walla julli mba euh, mba baaw naan wala yi demee noonu léegi nag moom la muy def ci su la muy def suba tuddul tuddul julli korite kenn xamul kenn xamul lan la bu boobaa la mu def dafa araam noppi gim noppi nëbb ko ay maamu yàlla dafa ni wala taktumu shahadata wa man yaktumha fa innahu aathimun qalbu yàllaa ko wax de nee na ko nee na bu leen nëbb bu leen nëbb seede ci wàllu diine wax ñi ngay jiite nga ni leen nga ni leen weeri feeñ na damay wari bu ñu bañee yow nga wari boo xëyee ñu wut beneen imaam bu leen jiite waaye am na sama benn doom boo xam ne ilimaan la moo ma wax dëgg ba ma koy wax dafa ma ne waa papa kon nan ba ma ko ne yow dooroo leen dem di leen jiite ji comme wari nga tey bu subaa doo dem mu ma nan laay def samay enveloppe nag noo bëgg ma def ko samay enveloppe maanaam enveloppe yi nga xam si ñooy ñëw ci jullikaay ba ak la ñuy bokkal sëri ilimaan loolu la ñu war a bàyyi loolu bu ko bay woon rek affaire bu daaj rek li kon jëlul muy dem di jëli ay enveloppe am comme wari na tey jii bu subaa nañ leen wuti leen beneen ilmaan bu leen jiite waaye waru dem di leen jiite fii ci Louga gi benn waaye dafa ñëw benn tabaski la waa ji ñëw ni ma a ah, man de sëñ bi damaa julli ji woon waaye ilimaan li mu wax ma ne ko lu mu wax mu ne ma ilimaan dañoo julli ba pare mu daan ni ku dem ku dem na rey tabaski man ren dinaa ba pare ma ne ko daf leen di waxal ni tabaski la démb maanaam ren na xaram démb ma parce que ilimaan bu jiitee ba pare balaa kenn ren dafa war a ren ba pare te ilimaan ren na démb nee daal man eh, dafa ñëw fi daal ah man de sëñ bi damaa jaaxal ma ne ko lan taal otoom ñëw ni ma man kat damaa julli ji dañoo jóge ci jullikaay bi léegi ñu ni ilimaan nee na ku dem mën naa rendi moom rendi na ba pare ma ne ko kon nga jëfandikoo sa xel yow yaa ngi nii ci jullikaay bi ngeen julli ba pare ilimaan jógul fi mu toog ni ilimaan nee na ku dem na ku dem na rendi moom rendi na ba pare mooy rek mooy rendi na démb xam nga kon li ma leen waxoon firnde ji ñëw na ilimaan yu baree bare man li ren jii rek am na ay ilimaan yu ma ko ñoom wari nañ waaye suba la ñuy julli kon laaj bi li ñu ciy tontu mooy kooku lam def dafa def bàkkaar ñaari yoon benn bi mooy nëbb na ay maamumam yàlla neen loolu ko def am na bàkkaar boo xam ne ca xolam la jóge wa man yaktumha fa innahu aathimun qalbu te nee na la ngeen la ngeen def man yàlla nëbb ngeen ko di waaye man xam naa ko ñaareel ba sol na mbubbam fekk ab bis boo xam ne di bisu kori yàlla tuddewu ko bisu kori moom mu dem tuddee ko bisu kori parce que moom wari na démb xam nga ñi mo ñi wariwul ñi sax ñoo tane par exemple ñi wariwul tey bàyyi ba suba ñi wari julli ñoo tane parce que ñoom bis boobu lañ jàppee kori mais wari tey jii mooy jàpp nga ni tey la kori kon ba nga di jiite nit ñi la nga di jiite bakkaar la maanaam lu tax mu nekk bakkaar foyee diine la parce que yaa ngi leen di jiite mbool julli goo xam ni da nga leen wan ni korite la ci yow xam nga ni loolu du korite bu boobaa loolu duñ ko tuddee lu a bakkaar te loolu nag moo bari Sénégal ñu baree baree bari looloo fa am mën naa laa li imaam ci gàttal sax ilimaan yi ma xam yëpp yi ma xam ren yëpp noonu lañ def ñenn ñi dañ ma ko wax carrément ñi dañuy dem pour jëli suñu enveloppe enveloppe bi la ñuy jëli loolu nag fooyee diine la waaye man daal li nga xam moom laay mujjee la ma waxool ci biir maa ngi yëgal ñëpp ni naxa yee daal naxa yooyu man dinaa ko commencé incha allah waaw. loolu daal laa amoon ci lu jox doon di ndokkeel ñëpp nag di ñaan yàlla mu defar ñu tawfiq télévision bi nag yàlla gën koo jëmee ca kanam muy Louga TV euh, bu ko defee ñaan lépp lu lépp lu ñu fi def rek. muy loo xam ne si luy jëriñ lislaam bi di jëriñ jëriñ jullit ñi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu